dugaloon jaarale ko ci ki nga xam ne moom mooy Abdoul Mbaye président bu acte ñu daal di waxoon ni nag ñoom ñi nga xam ne ñoom dañu daal nekkee na ci conseil constitutionnel waxuñu daal di nag délibéré ndax dañoo daal di nag manqué te buñu ñu sukkandikoo ci article vingt trois bu loi organique bi nag dafa daal di wax ne conseil constitutionnel amuñu benn légalité ngir délibéré nag ci bu fekkente ne seen i membre dañoo manqué loolee nak kii di Ismaïla Madior Fall sax daal di koy nag nag amul dara loo xam ne mën nañ ci reproché conseil constitutionnel ndax nag ci légalité la ñu nekk tax bokku ci nekk ci magistrat yi daal di koy nag copasé nu nekk ngir mu daal di wax nag fan la tekk loolee conseil constitutionnel nag jamono ji jàppale ne daal nañu mat sëkk ginnaaw coow loolu lépp ba sax na moom président Macky Sall ni ñu nag ni ko bindee ci wal Walf net sax moo ni dañoo daal di rectifier le tir moo tax nag ci lundi bi la daal di nommé nag trois membres yi nga xamante ni nag moom la communiqué bi sax daal di nag signé mon président de la république du di nommé c'est di nouveau professeur titulaire des universités mon est membre vos conseils constitutionnels en qualité de vice président du bénin décret itam mon président Macky Sall daal di nag nommé kii di Aminata li Ndiaye nek magistrat nekkoon premier vice président au cours d'appel de Thiès mon itam mon membre simple du conseil constitutionnel les ngir daal terminé terminer mandat feu madame Li Bousso mon mi di Aminata li Ndiaye amaat li nga xam ne mooy mandat de six ans waaye nag kenn dootu ko renouveler beneen décret bi nekk ñetteel bi nag di Mamadou Badio Camara bi nga xam ne moo nekkoon ancien premier président bu cour suprême ak Youssoufa Diaw Mbodj bu nekkoon ancien premier avocat général bu cour suprême ñoom ñi ñëpp ñu daal leen di nommé membre bu conseil constitutionnel yooyu di nomination nag boo moytu dina jur coow bu baax a baax ndax nag yenn ci ay magistrats yi ñu ci daal di sax nommé dañoo daal di dépassé li nga xam ne moom mooy seen âge maanaam